mooy ana sunu président ndax euh, li Ousmane ko wax ne Sénégalais yi amu leen président loolu sénégalais bu nekk jàpp naa ne seetlu nga ne bu ñu amee ab président tamit seetaan na aw askanam li ñuy wax na képp ku ko mën a partager nga partager ko ngir askan bi man see jot tey dañu gis ne sénégalais yi dañu sonn sénégalais yi dañu sonn ci mbir yu baree baree bari inondation yi ma jaaba jonge askan bu baree bari tëmb ci ndox mi njëg yi yokk na cher na ba maara day ñu gis na ñaar yooyu yépp président bi yëkkatiwu si kàddoom wax ci am na juróomi nit ñoo xam ne faatu nañ ci ndox mi fi nga xam ne mooy Touba lu toll si ñaari téeméeri kër wala ñaari téeméeri famille yoo xam ne ndox mi nangu na seeni kër te gisuñu président bi yëkkati ci ay kàddu li Ousmane ko wax tamit vraiment mbir la moo xam ne neexut a weddi mooy njiitu réew mi dafay narge Sénégal yi maanaam mën nañu ko jàppee kuy ñaawal Sénégal yi kuy wax Sénégal yi naan seeni jafe-jafe sama yoon nekku ci ndax jamono ji nga xam ne askanu Sénégal njëg yi yokku nañ père de famille yu baree baree baree bari ak tumuraank dugg leen ceeb bi cher diwlin gi cher suukar ci cher ba kenn mënu koo gis ciment bi cher yokk beton bi yokk lépp loo xamante ni jëm na rek ci wàllum tabax ak fer bi yokk na ba maara détail jamono jooju nag si lañ gis président dugg ci ab avion boo xam ne 60 milliards la jël ci alalu askan wi jënd ko si di selvi ci biirub avion te selfie moom selfie képp ku ngeen gis mu koy def mooy ko kontaan selfie képp ku ngeen gis mu koy def rek nit mooy sangu ba pare solo di selfie wala nekk ci xew wala nangam ak nangam jamono jooju nag kon moom jamono ja président Macky Sall di selfie kontaan jamono jooju ay sénégalais ñoo ci biir ndox mi ay sénégalais bëgg nañoo añ mu tëleen bëgg nañoo reer mu tëleen te mbënn mi am nañu si faatu jafe-jafe yi am na ci dëkk bi te gisuñu président yëkkati ay kàddu masawu askanu Sénégal loolu moo tax usmaan sonk ne Sénégal yi amu leen président ak président bi fan la nekk ndax tey askan wi nga xam ne ñooy yewoo ca dakaar ca gox bi ñuy wax Kër Massar président bi dem na fa daaw fekk askan wi ci ay jafe-jafe mbënd mu leen di wax mbirum dinaa leen defal Kër Massar département ne seen jafe mbënd mi dinaa ko saafara waaye gis nañ ren la nga xam ne moo fa xew mu nekk loo xamante ni lu tiis la ci askanu Sénégal waaye nag dañoo wax ne fulla ak fayda nit moo koy wutal boppam am na loo xam ne taxawaay bu askan wi war a taxaw la ndax élection locale yi nga xam ne mooy ñëw maa ngi liir ay journaux bind ne diggante Macky Sall la ak dund gu jafe gi ñooy dem ay élection diggante Macky Sall la ak mbënd mi ñooy dem ay élection diggante Macky Sall la ak njëgu cher yi ñooy dem ay ay élection waaw léegi nag fi nga xam ne moom la ñuy daaneele mooy fii ci Touba dama bëgg suñu mbokk yi ngeen déglu ma bu baax a baax daaw daaw jéeg bi màggalu Touba gi eh, jàllee li may wax nag maa ngi wax sous le contrôle de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre porte-parole du khalife général des Mourides kum neex nga dugg ci internet bi nga xool ko CRD màggalu Touba ci la ko sëñ Bass Abdou Khader waxee woon daaw ne daaw jékk sëñ mun Muntaxa daf ko yónni woon ci président Macky Sall ngir ay yitte yitte yi dëkk bii di Touba waaye ñaari yitte yooyu ba léegi Macky Sall saafarawul ko askanu Touba ndax sëriñ bi lépp lu mu bëgg mu saafarawu askan wii di yeewoo Touba moo tax te ñaar la yoo xam ne responsabilité état bu Sénégal la te ba léegi état bu Sénégal saafarawu ko bi si njëkk mooy jëm ci wàllu màggalu Touba ak ndox mi nga xam ne mooy faral di manqué ñépp xam nañ ne Touba dafa am jafe-jafe ndox sancaan yu baree baree bari amuñu ndox ci biir Touba te bëri na ay quartier yoo xam ne bu màggal ñëwee du am ndox ba fii may waxee ak yéen su ngeen demoon Aliya Daaru Xadim ak yeneen quartier ci Touba dañoo am jafe-jafe ndox te màggalu Tuubaa gi dikkagul kon loolu nga xam ne Sëriñ am moo ko sàkk woon ay ata a ngi nii ba léegi gouvernement bu Sénégal réglé wu ko leneen li nga xamante ni sëriñ bi sàkk woon na ko te ba léegi nii état bu Sénégal réglé ko mooy lu jëm ci wàllu mbënn mi sàkk woon na ko état bu Sénégal ne dina jël budget 23 milliards jëm ci wàllu assainissement waaye ba léegi nii gis ngeen li nga xam ne moom moo xew Tuuba ba am ñu loro ci ndox mi jàpp naa ne nag nit lu mu far kenn ñëmut a weddi ne inondation amul Touba te gox yii mu am ñëpp xam nañ ne fi la yàgg am muy ndaamaatu ak Kër Ñang kon nag dama jàpp ne 23 milliards yooyu buñ ko jëlee fi gënoon a jàmp mooy xool fi nga xam ne foofu la askan wi gën a sonnee neewoon nañ tamit jël nañ 10 milliards dugal ko ci assainissement Touba waaye 10 milliards yooyu fan lañ ko dugal ci biir Touba loolu nag ab laaj la vraiment ndax ñëpp gis nañ mbedd Touba yi ni mu mel ñëpp gis nañ askan wi yeewoo Touba jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu dund ci inondation yi ñaari càkkutéef yi nag xalifa bi moo ko sàkk woon ci njiitu réew mi yónni woon fa Serigne Bassirou Mbacke Abdou Khadre te ba léegi nii saafara amugu ci fi ñuy jeexalee mooy dafa am loo xam ne président Macky Sall daaw ci màggalu Touba gi bi mu ñëwee Touba président Macky Sall mook Abdoulaye Diouf Sarr bu leen neexee tamit ngeen dem ngeen dugg ci internet bi ngeen xool bi Macky Sall ñëwee daaw Touba ak Abdoulaye Diouf Sarr dañoo waxoon ne hôpitalu Touba bi mois de mars lañ koy livré mois de mars bële passé mars avril mais juin juillet août septembre mois de mars lañ koy livré kon passé na bu yàgg yàgg yàgg. app bi ñu waxoon ne moom lañu koy livrer te président bi muy wax dañuy livrer hôpitalu tubaab bi ci kanam xalif général des Mourides la ko waxee mois de mars Abdoulaye Diouf Sarr bi muy wax mois de mars même ci màggalu tubaab googu moom tim ma ngi jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi kon nag rappel def ciy baax su ñu waxee yenn wax te jëfewuñ ko ndax ñoom indiwuñu ci explication li nekkoon respect mooy soo taxawee ci kanam xalif général des Mourides ci kanam askan bi yépp ne hôpitalu Touba bi dinañu ko livrer mois de mars